nekk itam secrétaire national adjoint mi yor euh, ci chargé de cadre bu parti réew mi parti a Seck euh, li gën a tax nag ñu invité la tey gii nii euh, moo di caw la ca caw la ca jas jë tukkee ci wàllum euh, suuf ma fas yéene ànd ak euh, Pape Bes Diba ci euh, waxtaan wi coow la ca suuf loolu sax tax na ba ñu teg loxo ñaari fukki ndaw ak ñett jamono ji retour de parquet la ñu am ndax démb la leen procureur waroon a déglu xaw ma déglu la leen déet xeexoo sax moo fa amoon est-ce que li fi la am ca jas bett na la. asalaamaaleykum Georges. su ma la ko laajee parce que tout simplement yow yàgg ngay artu ci wàllum foncier foofu ca jas waaw effectivement bon ñu ngi nuyu tous les jours de la RFM matin ak euh, tous les Sénégalais particulièrement waa commune de Diass waaw Georges li nga wax en fait euh, c'est vrai am na un an jour pour jour fii laa nekkoon le le 3 septembre 2020 ñuy wax ci problème suufu Diass dans la même émission mais balaa ñuy fay ñuy wax ci émission bi aussi ñu naxarlu ak métti lu li am Diass semaine bi bu aboutir à des arrestations comme vous l'avez dit am na 23 personnes ñu fa arrêté euh, malheureusement ils sont toujours dans les lieux de la détention hier procureur commencé na ci déglu quelques-uns mais finalement paregul xëy na tey dina leen déglu yëpp te ñu am yaakaar ne dina leen bàyyi parce que ñu dañuy laaj dañuy demander à ce que ñu libérer ces personnes là parce que en réalité defuñu dara loo xam ne tax ñu jàpp leen li ci gën a doy waar mooy que am na ñu fa jàpp ñoo xam ne fekk manifestation yi am na ñoo xam ne tey bi ñuy manifester dem na liggéey bi ñu ñëwee lañ leen jàpp am na leen fekk seen biir kër di leen jàpp sans mandat d'amener ce qui est euh, euh, illégal et injuste te may waxaat encore di ko répété tant que le problème foncier de Diass n'est pas réglé par l'État du Sénégal chaque fois bu ñu ñëwee foofu day am ay jëlti jëlti ak ay xeex parce que en réalité il y va de notre survie la population de Diass. mais attribution bi. nan la demee. c'est pas une question d'attribution le problème de Diass c'est pas une question de 30 loolu c'est minime le problème de c'est un problème global et général. Euh, li tax ñu jàpp. li ko sooke la ñuy njëkk. parce que pour man lii c' est une goutte d'eau seulement qui fait déborder la euh, comment encore. la vase en réalité li am Diass mooy que tey c' est une commune par exemple aujourd'hui boo ko naroon juste euh, def euh, cartographie une commune par exemple disons de 1000 hectares état bi ñëw jël mu ne 800 hectares daf koy jël voire 900 hectares yi. te ay nit ñi fa dëkk jël ko en l'insu ou bi en excluant la population locale moo war a lii tey dama lay defal benn cartographie bu ndaw encore jot du ma sa taay di ko wax euh, pour ñi xamul jas ma jël ko di manière linéaire xam na peut-être euh, Georges xam na Diass waaye Pape Bess xamul Diass mais damay wax ne Diass la commune de Diass moo mooy la première commune adossée à la région de Dakar. Mm. donc boo fay dem par exemple nga jël route nationale à partir de croisement yéen ba Sindia linéairement foofu mooy commune de Diass damay jox juste benn exemple bu ndaw gis nga boo passé croisement yéen fi ngay njëkk a teg commune de Diass euh, village yi ngay njëkk mooy Toglou Kantam ak ainsi première euh, am na cent hectares cent hectares yoo xam ne dañ ko jël attribué à espace gros porteur mu cerner village yooyu village yu mënuñu màgg nga passé euh, Kantam teg fa benn tiñ ak buuxu ba paaki ñu jëlaat fi 718 hectares ci diggante dëkk yooyu jël ko pour un projet de zone économie intégrée dëkk yi mënuñu màgg nga jëlaat à droite mooy lu mat sept villages notamment Diass Samke Mbayar xolpa euh, dagg ak encore buuxu ñu def ci benn pôle urbain 3000 hectares yoo xam ne village yëpp benn mënu ci mënuñ ci màgg ñu extant boo génnee encore jas nga dem ba croisement Kirène dem fi ñuy wax ci kii Kirène en tant que tel triangle boobu ñu jël fa 4000 ñu ne fii aussi ñoom ñoo ko moom kenn amul droit ci dëkk ba tabax fa wala teg fa dara tey toolu jàmbur foofu croisement ci am na yeneen espace yoo xam ne ñu mel ni par exemple centre d'enfouissement technique boo xam ne état bi jël na ko mais peut-être finalement sax bàyyi nañ ko ba mairie Diass def ci loo xam ne loolu dañ ci ñëwaat yooyu yëpp boo ko boole ak aéroport bi boo xam ne plus de huit mille hectares non bes bàyyi ma parce que day compliqué c'est-à-dire compliqué loolu ñu ko wax nit ñi ñu xam ko balaa ñuy wax wax waaw non mais li li nga xam ne moom moo gën a taxaw mooy ñi ñu jàpp mhm. dañ leen jàpp ci ñu ne dañu demoon ci fa ñuy trente et hectares yi mhm. ak liggéey bu ñu fa dooroon liggéey bi lan la ak loola lan moo ko waral expliqué dama la ne loolu li waral li problème bi mooy lan dafa am 718 hectares boo xam ne gouvernement du Sénégal daf ko jël attribué ko à l'APIX mu ne zone économique intégrée la foofu dañu ne ñun on n'est pas contre les projet de l'État du Sénégal parce que ce sont des projets publics mais nag il faut ñu inclure ñu ñu inclure ça doit être foofu en fait dafa am benn quartier bi fa nekk bu war a màgg bu tudd Sakirak c'est un quartier à Diass qui est cerné de l'autre côté par l'aéroport de l'autre côté par benn aussi zone boo xam ne aéroport nañu moo ko zone servité servitude benn donc fi mu mën a màggee seulement foofu la ñuy jëli jox ko par exemple APIX léegi nag population bi dañuy laaj pour ñu jox leen aussi fi ñu mën a dëkk parce que aussi nañu toog nekk ci benn promiscuité boo xam ne euh, kenn xamul mu mu tool ba pare ñu jël ay yu suñu suuf di ko jox keneen c'est ce que la population a demandé. 31 hectares yi. waaw la nax APIX sa ko moom wala. pour pour que ce soit clair d'abord. xam nga lii gën a mooy que cette zone là APIX moo ko moom set zone APIX lañ ko jox mais li ñuy wax balaa ñuy jox APIX ñi fa dëkk lu tax duñ leen ñu dëkk ci. c'est pas seulement les 30 hectares je veux que le problème ñu globalise c'est-à-dire c'est pas ce problème suba bu ñu demaatee ci pôle urbain ba ils encore arrêter des personnes pour dire que le problème ce n'est pas seulement ça le problème est général il faut que l'État du Sénégal moo xam ne tant qu'il ne reculera pas sur ce truc là ce sera toujours ainsi à Diass. chaque fois bu ñuy commencé mais mais foofu mais yéen ndax askan gi foofu. kenn dina leen gën a njëkk a bénéficié dix ans lan lan la c'est une personne qui est venue qui fait des qui absolument kenn xamul lan la explique ñu waxuñ dara mais je veux dire qu'en avant ñuy wax waxi APIX mais l'aéroport de Diass est là-bas jël na huit mille hectares. et pourtant tey population bi gisuñu seen bopp wax naa la ko fii Georges mais li gën a garaaw pôle urbain bi 3000 hectares la foofu la ñuy ne dañ fay def ay dëkkuwaay te pourtant ñun dañu am problème dëkkuwaay. mais attends xanaa balaa ngay ñëw di dëkk si si ñi fa dëkk quand nga jox la ñu dëkk nous nous demandons que nous soyons impliqués de ces projets ensuite aussi ñu defuñu suñu zone d' extension tous les 17 villages de la commune de Diass amuñu fi ñuy def extension et vous croyez que loolu c' est normal. c'est une question de survie ah c'est-à-dire tey bu ñu toogee di xool finalement dañuy ne jóge leen fii dem leen feneen parce que bu dee 1000 hectares nii 800 hectares ñu jël ko li des après finalement on va ñu di yéen jóge leen fii dem leen feneen dikki feneen mais nag li wolof di wax ku bugg a dee weexu balaa ñuy ñu ñuy rey wala balaa ñu ñuy rendi aussi dañuy xeex aussi c'est ça en réalité le problème maintenant la seule et unique solution c'est mooy que l'État recule bàyyi suuf si yoo xam ne daf ko war a bàyyi askan bi ñu def seen zone d'extension mais population dans ces projets-là mais comment vous pouvez comprendre des projets mais xam nga dañuy wax nañ ci boole askan yi nañ ci boole population mais du ñu ñëw jël ku nekk rek ñu ñëw woo la da ngeen am ay représentant lu mel ni seeni mairie ak euh, lu mel ni collectivité yi territoriales yi nga xam ne ñoom ñoo nekk foofu mais ñooñu ñooy ñooy seeni représentant ñooñu la ñu fal euh, d'accord loolu am na mais du ñu ñëw jël euh, voilà ku ne rek ñu ñëw tànn la ne la non kaay bokk kaay kaay kaay mu warul demee noonu aussi ñu xam nañ ni mu war a parce que am nañ ko apix bi ñuy wax ni tey bi ñu bëggee jël foofu ils ont fait une audience publique yeneen projet amul audience publique encore ensuite ñi ñu représenté aussi notamment les élus locaux et les maires ne sont pas dignes de représentants de la population à Diass. waaw mais yéen dañ leen fal nag. waaw même bu dee wax mën nañ fal te doo xam doo malheureusement doo xam sa ru wala doo mérité sa fal tey ces projets là tey <laughs> maire bi wala entre les locaux locaux am na projet yoo xam ne tey ñoom ñoo ko ñoom ñoo ko validé à l'encontre de la population donc population bi tey il ne s'identifie pas à les représentants notamment le maire et

Comment? irrégulièrement. Comment? Oh, comment il est habilité à le faire. oui ah mais, ouais, euh, mais il y a une procédure euh, un seul exemple. le maire de Diass qui est là actuellement il a fait un an d'exercice seulement il a remplacé un défunt maire yàlla na le maire de Diass actuellement n'a jamais réuni le conseil municipal de Diass pour faire une délibération il se sert d'une délibération de pour faire des attributions qui sont irrégulières. Non, et mais c'est continuité continuité j'ai dit. il fait des actes administratifs sur la base d'une délibération de 2015 il aurait devait normalement réunir son conseil municipal ñu délibérer par exemple sur les lotissements mais loolu pour man dinañ ci ñëw lii mbir te mbir mooy que tey au niveau de Diass nous avons un sérieux problème avec l'État du Sénégal mooy que l'État du Sénégal tey il a fait une mainmise sur toutes les terres de Diass te loolu la ñuy wax. non mais c'est-à-dire dafa am aussi benn réalité boo xam ne moom moo commencé jib fii nii. Hmm. da ngay gis koo xam ne day ñëw yor alal. Hmm. yor projet am euh, su population yi dëgg ñoom ñooy am suuf par mais mënuñ ci def dara. Hmm, waxtaan mën na non dafa nànk rek. waxtaan mën na njëkk mais souvent euh, man soo ñëwee ak casquette politique rek parfois damay xaw am problème. et souvent c'est politiciens yi ñooy nekk ci ginnaaw ay groupe yëngu manifester def mi non population population. population en fait en réalité ah, day day lool. la benn affaire la commune de Diass le problème foncier de Diass tey ça fait vingt ans c' la commune ki abrite le plus grand nombre de de l' État Sénégal. ce n'est nullement de la politique. loolu kay yéen dañu war a tàcc ci loolu. mais si les projets bu ñu ci gis suñu bopp lu tax ñu koy tàccu. bu dee les projets c'est pour nous nous exterminer en quelque sorte. le mooy fort loolu la. li ngay wax. aujourd'hui boo demee on a on a l'impression que yow euh, comme li Pape Bes wax rek yéen politique yi la nekk ci ginnaaw ndax vous utilisez le même terme que ñi doon wax ci rajo bi démb. waaw mais déedéet mais c'est la population. est-ce que du yéen leen dee. waa non déedéet absolument pas absolument pas tey am na ay collectifs yoo xam ne boo bëggee nga invité leen ñu wax la la même chose qui sont apolitiques. tey c'est-à-dire tey man et c'est là où j'interpelle tous les hommes politiques de Diass qu'ils parlent de ce problème foncier. c'est-à-dire tey le problème de le problème foncier de Diass aujourd'hui pour man amul benn parti politique bu ci war a gagné bu dee en tout cas tu es intéressé que par l'intérêt de Diass j'appartiens au parti je défends peut-être mon parti mais pour ce cas-ci ce n'est pas une question de parti c'est une question de survie de notre territoire de notre localité nan la mën a defee projet boo xam ne nii day du du askan gi gi nga xam ne nii moom fa lañ koy def du ci gis boppam du leen indil njariñ waaw mais boo demee dama leen ne demal ci projet état yi fa nekk yi fa nekk en tout cas gisuñu suñu njëriñ parce que projet boo xam ne tey par exemple da ngeen dafay def ay logement par exemple comme le pôle urbain tey ñun ñu am fa di fa di fi béy di fa euh, suturlu di fa dëkk fa nga ñëw nga ne da fay def ay projet local yoo projet habitation yoo xam ne ñun soxla nañ te te la population li ma lay wax c'est-à-dire c'est une réalité je pense bien que Georges mi xam na suñu zone bu baax bu fa dem dina la ko na la ko firndeel mais ce n'est pas ay question par exemple tey état lu nga def amul absolument pas un projet boo xam ne mu nga fa tey ñu contre ko d'une manière systématique dañ ko contre parce que gisuñu suñu bopp les projets où il a l'implication de la population population évidemment dañ ciy collaborer mais mënuñu comprendre des projets yoo xam xamuñu lu mu fa demee pare mu ñëw ñu jël suñu suuf aussi di ko di ko jàppale. c'est ça bi fu mu toll léegi sax. yaa xam bu ñu leen ko puusaloon peut-être euh, ça peut une solution. mais forêt classée la woon en fait le problème de 718 hectares. mais forêt classée si biir dëkk bi dara bu ñu ko poussé dañuy war a jox dëkk bi ñu. Mhm. dëkk pare après lu des état ko la mais par exemple le pôle urbain n'était pas une forêt classée pôle urbain ay tabax la woon ay ay astafurla ay tool la woon nit ñi di fa béy le port du futur bi ñuy wax noonu Ndayane c'est pas Ndayane une grande partie c'est à Diass te foofu ay tool la mais nag pas bees peut-être xëy na xam na ah, suñu localité. mais ah, boo xoolee wax dëgg yàlla. <laughs> bawal laa gën a xam waxtu bi daanaka jeex na juñ naa sànq ne yow euh, réew mi nga bokk seen waaj def réer fu mu ne. kookan la seen waa ji Idi. non Idrissa mu ngi fi loolu kay xam naa yaa ma bëgg a tooñ rek. non dama lay ah, a démarré <laughs> ma bëgg a tooñ rek <laughs> mais encore une fois de plus nous demandons aux autorités judiciaires de libérer les personnes arrêtées pour jàmmam ba pare état bi aussi impliquer la population dans ces projets pour que au moins jàmmal sinon loolu. bu amul toujours ainsi. la population va toujours refuser euh, aujourd'hui que ces terres terres soient prises par l'État du Sénégal. jërëjëf Khaly Diouf responsable politique ca Diass secrétaire national euh, adjoint chargé des cadres du parti Rewmi jërëjëf Pape Besdi Ba nuyu Cheikh Diop ak ñi mu àndal ca TFM yéen doog jàmm.